muy gaawu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai fële ci réew Burkina Faso jaaree ko nag ci dialogue national boo xam amal nañu ko fa lañ fa adopté daal mooy kon dañuy yokkal Ibrahima Traoré mii capitaine Ibrahima Traoré ak ñi mu àndal ci bopp réewum euh, Burkina Faso ñu woy di fa nekk fii ak juróomi at yeneen an daal prononcé nañu kon transition bi foofu ci réewum Burkina Faso fii ak yeneen juróomi at di lool dañ koo daal di nag adopté ñi ko adopté nag mooy ñi woon ci assise nationale yi amoon ca Ouagadougou di capitale bu réewum Burkina Faso yokkaat nañ ci daal yeneen 60 mois juróom-benn fukki weer loolu de xanaa am kon mooy juróomi at yi mu war a tàmbali nag le 2 juillet 2 juillet 2024 ci la mandat bi mu doon wala bokk transition bi mu fa waroon a jeex léegi nag yokkaat nañu ko bu sukkandikoo ci colonel colonel Moussa mi nekk président du comité d'organisation bu association ñu amoon foofee moom daal kon nee président Traoré kon dina mën a wéyal nekkaat war a jeex muy élection présidentielle législative ba ci municipal bu ci bëggee bokk itam dina ci mën a bokk loolu kon la ñu tënkee ci dialogue national bi nga xam ne moo amoon ci réewum Burkina Faso kon jàpp leen euh, transition bu réewum Burkina Faso depuis septembre 2022 coup d'état fa amoon ci la ñu nekk yokkaat nañ ko yeneen yeneen juróomi at yaakaar naa beneen juróomi at nag ñoo ngi ci 2024 vingt cinq vingt six vingt sept vingt huit normalement vingt huit kon la war a jeex leneen cee xabaar yi ñeel bitim réew ñu boole ko ci benn vocal tàmbalee ko ca Nouvelle Calédonie auditeurs yi Mouhalim malgré yebal nañu armée ba foofee def nañu ay pexe ñoom waa France ngir bëgg situation ba kon daal di dellu see caaju tax na sax président Emmanuel Macron dem fa waaye daal mbir ma ba léegi ma ngi wéy di mel na mu mel bu fekkee yéen a ngi fàttaliku ca Pakistan waaw Afghanistan bokk ba nga xam ne Amérique yi ña ngi fay jógee na nit ñi doon songe avion yi ngir génn réew ma ndax jàpp na taliban yi dañuy jëlaat réew mi jàppale na lu mel noonu itam am na ca Nouvelle-Calédonie ay nit yuy song ay aéroport ngir nag jël avion génn réew ma rawatina nag ñi nga xam ne dëkkuñu fa situation bi kon doy na waar foofu. Emmanuel Macron nag nee na noppi na kon ngir ñu dem ci référendum day mel daal ñoom li ñu bëgg mooy ñu nag libéré leen ay indépendantistes maanaam daal ñoom daal daa mel ne dañoo bëgg moom seen bopp comme ni France colonisé woon. Euh, réew yi comme ni comme ni France France euh, moo maanaam colonisé woon yenn réew yi Afrique yi te xëy ba leen rek ñoom ñoom nag dañoo nekk ci colonisation ba léegi léegi nag daa mel ne daal loolu la ñu bëgg président Emmanuel Macron nag nee na noppi na ngir amal daal référendum ci mbir mi bu fekkee nag wii baa ëpp ñu bàyyi leen ñu demal seen bopp waaye daal mbir maa ngi wéy di situation bu catastrophe la ni ngeen gisee ci image bu mel ni daal noonu la mel ay nit daal ñooy baare yoon yi di kenn du dem kenn du dikk malgré arme bi yóbbu na leen foofu arme bu réewum France waaye situation bi ma ngi wéy di doy waar daanaka si euh, kenn mën ko contrôler foofee di Nouvelle-Calédonie di dëkk bopp waa France ñoo colonisé diggante mook France nag sore nañu ci ab ab ab île la bu ñu jugee foofu président président Donald Trump ki jiitu woon Amérique te bëgg koo jiitewaat tam jafe-jafe gi yoon terewul nag candidat la te ñu bari wax nañ ne am na chance ngir gagné waa réew ma ne ñoo mooy fa moom day nee na bis bu faloo ci bopp réewum euh, Amérique buy faloo rek conflit bi dox diggante kenn ak Russie di jeex waaw noonu daal nee na bu ñu koy fal muy jeexal conflit bi loolu nag waxul ci yan anam la koy jeexale wala bokkoon ci li ñu gis ci xabaar gisuñu fu ñu waxee ne kat ci anam yi koy jeexale waaye daal moom nee na bis buy falu ca boppu réewum Amérique conflit Ukraine bi kon di jeex loolu daal daal di wax deux cent camions yu def aide humanitaire dugg nañu ca gasaa tey jaare ca Égypte tey ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai dibéer ña nga jaare nag ca passage israélien ba nekk ca Karem Karem Salom waaw xam ngeen ne dafa am benn euh, barrage bu ñuy wax Rafa boobee moom waa Israël dañ ko dal tëj waaye nag dañoo tijji beneen bu ñuy wax Karem Salom fa la ñu jaarale lu ëpp ñaar téeméeri wala boo ko toog ñaar téeméeri camion et humanitaire ngir nag jéem a euh, dimbali askan wa ca ak dund lii nag Israël da ko da koy bañ te nag xëy na euh, mën naa am li ma wax démb ak tey ne ñu ngi wut solution xëy na ngir bëgg jàmm ak li mel ak pression bu tar yi na moo tax ñu nangu li waaye deux cent camions moom bëriwul lu Israël di nangu muy dugg foofee kon deux cent camions aide humanitaire dugg na ca bande de Gaza tey jii jaare ca barrage bu Kerem Salom fam daan jaay nag di barrage bu Rafah moom foofa dañ koo tëj ba léegi te itam euh, foofa Israël fa la Israël di amal opération wax naa leen démb ci guddi ne itam leen Israël am na ci leen a teg nañu leen loxo manifestation yi ci am réewum moom réewum Israël ña fa nekk ma ngay wéy di tar ak itam xalaatub nee ñu daal Israël mi wuti pexe ngir wut ak déggoo ci digganteem ak waa Hamas ngir ñu am jàmm waaye nag jàpp leen ne kenn ci waa Hamas nee na ñun bëgguñu loolu de waxtaanuñu jéemuñoo waxtaan sàkkuñu waxtaan la ñu bëgg daal mooy communauté internationale bi dañuy a ba Israël wàcc ak dogalub cour euh, euh, à cour de justice internationale rek ba nekk ci mbootaay xeer